mbokk internautes yi nag leen ak jàmm Diary Sow génnati na daal di nag yàkkati sénégalais yi lu mel ni xeme moom jaari Sow mi nga xamante ni nag moom lañu fi daal di nag faloon mu nekk meilleur élève fii nag ci concours général bu Sénégal moom Diary Sow xam ngeen ne moo fi defoon benn fugue boo xamante doon France ginnaaw bu mu amee benn bourse ginnaaw bagam mu daal di nag dem ngir ami li nga xamante ni nag moom daal di fay eggalee jàngam ca la nag daal di dem ñu daal di koy nag inscrire euh, ca euh, lycée Louis le Grand euh, bu nag Paris ci classe préparatoire moom mi jaari sow nag daanaka def na nag dix mois ndax daaw ci feetu décembre yi ci la daal di nag génnoon ca logement am nga mu nekkoon nag di nag logement pour étudiants yi nga xamante ni nag fa la daal di logé woon tëj ay mbiram tëj léppam nag daal di dem fa li nga xamante ni nag moom mooy Euh, ca euh, diwaanu nag euh, France foofee nag mu dem ba ci benn dëkk daal di fay nag toog moom jaari sow mile waaye nag mu nekk ab étudiante boo xamante ni nag moo nekk itam autrice li nga xamante ni nag moom mooy wàllum littérature lay daal di nag def moom mi euh, daanaka dañ ko daal di reconnaître deux fois meilleur élève du Sénégal mu daal di euh, nag euh, def di tam couverture médiatique internationale ginnaaw disparition volontaire bi nga xam ne defoon na ko en janvier 2021. mille vingt moom Diary Sow daanaka nag génne woon livre bi mu daal di nag duppe sous le visage d'un âge teg ci beneen muy je pars moom Diary Sow nag daanaka mu daal di nag defee réapparition bu daal di mujj nag ci benn euh, conférence de presse boo xam ne daf ko daal di nag euh, def euh, ginnaaw ba mu daal di ñibbisee nag en janvier jeune romancière bi ñu daal di koy nag invité say su ne nag disparition boobule en 2021. mille taxoon mu daal di émouvoir tout un peuple muy Sénégal ak France mobilisé itam diaspora sénégalaise bi ñëpp di ko wër ku nekk nag di ko wër ñu koy tagee di ko partagé ci réseaux sociaux lépp rek.

ko suis euh, Diary Sow fin janvier ñu daal di koy gis euh, une de la presse sénégalaise mu nekk nak ko xamanteni danaka elle était dara jotu ko won mu Sénégal jeune étudiante bi di expliquer li nga xam ne moom motivation te nag daanaka dafa discret euh, sorti livre bi mu annoncé ko ci compte Instagram am en février euh, di nag euh, nourrir toutes sortes de spéculation yenn ci ay internet ju ko accusé nag dafa orchestré disparition ci lépp ngi daal di am buzz ak nag wàllu publicité 25 mars bi moom jeune sénégalaise bi daal di nag bokk ci forum exclusivement féminin organisation institut français la woon bu Saint-Louis Diary Sow intervient ngir partager expérience bi mu daal di am en tant qu'écrivaine euh, moom mi nag daanaka tey jii la daal di nag xëyati daal di defati beneen buzz wala bokk beneen gaaf ndax bii sax mën nañu ne bat bad buzz la ndax benn dañ ko daal di invité nag ci benn plateau moom jari Sow euh, mu ne daal maanaam sénégalais li tax mu bind livre bu mujj bi mooy nee na nag dafa daal di ñëw rek ngir wax leen que ne vous m'emmerdez maana bu ñu ko déggee nag moom ay kàddoom la nee na nag livre bi buñ ko résumé li mu bëgg a wax mooy ne daal je vous emmerde te je vous moom bu ñu ko mooy wàllum saaga la moom jaari sow li mel la daal di nag yëkkati di ay kàddu ñëpp nag fu mu toll dañ nekk sous ndax ñuy naan kii réew moo ko jàpp wala boog xamati wala boog lan moo ko jàpp a ñu bëri loolu la ñuy posé wu ndax nag lii lépp xew tey jii nag mu toogaat fii nan nit yi dañ ko wara a nak di euh, ndax dañ nekk di ko jugé euh, te ñun ñi ñëpp ña ci doon wax ak ña ko doon juger ñun ñëpp euh, nee nañu je vous emmerde kon nak moom jaari Sow daanaka nag vidéo bi mu daal nak def siiw nak tey ci ngoon nga ñu koy partagé moom la ngeen ñi daal di dégtal na ngeen le livre au complet est une façon de dire je vous emmerde Sénégal la bopp